tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ni fo site internet di bus mtv Senegal, bu leen fatte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar dal leen ak bu internet yi savo di setan mtv Senegal, ñu ngi leen di jaajëfal si ànd bi ngeen ni and ak seen bi lamb ji doon dox si diggante sa thiès won woon way nek rak si balagay ini numéro 2 mom ak ki di eum Sène tay singer dof du wër day tene borom bul faale mom emosien sen daal nay daan ki di Sa jël bu leer nañ jël bu amul ben werante mom Sa ci bir combat bi sax nak jot na ci am ab blessure ba dem si deux fois deux fois ba troisième fois bo xamné dal médecin yi daat nañ koy xolal baram di mom mi di Sa nga xamné premier contact bima am ak ki di Eumeu sen Eumeu sen emosien ko ba mu kaw man nañ né kaw ba mu kaw yak Sa mo moo yak lambam kumi ndax bi mu daan def kumi mësa beurel première minute yi day ñew songu la jaar sa ko way bi la yoon nak bi mu taxawé lu toll ci 3 minute day waja ag ci 4 minute ci la daf bërët bi songu ki di Eumeu Sène Eumeu Sène daal di koy door ay coup yooyee coup nak man nañ ne mo té Sa Thiès ba lamb ji ci lewto la mujjé lewto lewto ba fa mu mujjé moy ki di Eumeu Sène daal di koy daan ci bëre jël bu lèr nañ da ko tak ba mu dëgër mom mi di Sa Thiès Eumeu Sène daal di koy tourner khatar bi ko mu daldi di jaaxaan mu nekk jël bu leer naññ bo xamne ne di eumal sen daal na koy am si kaw ki di satiès man nañ ne satiès mo fété won ndaw gëna nek xalé ñu jappon que ne mom bu jappé eumal sen mi daal lamb ji du yag du taxaw ndax ndaw ak dole mak yemul waye ki di eumal sen daal dof du wër day tene woneeti na daal nay jappu satiès duma ko mën nañ ne ba pare daal di koy daan jëll bu leer nañ jëll bu amul benn weranteem ñuy félicité Eumeu seen tey encouragé ki nga xam ne nag moo di Sa xam ne beneen yoon mën naa am ndam moom Eumeu Sène fan la jëm jamono bii nga xam ne nag daal dinay daan Sa Thiès freiné booy bii nga xam ne ku naqaree daan la ndax bëre ba waaye fitwa waaye tey jii daal moom Eumeu seen wonati na boppam ñu koy félicité ginnaaw ba mu daanee ki nga xam ne moo di Sa Thiès nekk rak si Balla Gaye numéro deux